يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء لي دواما خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء لي دواما خيره juliti mbokki taalibe yi nga xam ne nii yéen a ngi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal dañ koy ànd ak rek ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy amal ci biir réew mi ba bitim réew ci tasaare lépp loo xam ne ni taarix la rawatina taarixu ba taarixu ku baax ak ay xew-xew yoo xamante ne nii lépp day ñeel diine lépp nag ñi nga xam ne nii ñoo di mbokki talibé di ci jariñu tey jang ñoo ngi fii ci dëkk bu ñuy wax Gadeyelle Gadeyelle nag bu ngeen ko déggee xel yëpp day daal dem ci naar yi nga xam ne nii ñoo toppoon sëriñ bi di naar naar Darmanko yi di bis boo xamante ni nag ci dëkkub sëriñ Mor Farama Amar ki nekk xalifaam di sëriñ Mortada Amar bi ñuy amal màggal gi nag boobaak léegi nekk soixantième édition maanaam juróom benn fukki yoon ñu koy amal di màggal goo xam ne nii dañ koy def ngir sant Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye jokk ak mbokk waaye dundal l'islam màggal gi nag xam ngeen ne at mu jot Serigne Mamor Mbacke eh, xalifa Cheikh Mouhamadou Moutada dafiy teew teewaay boo am solo boo xam ne nii fekk si ki nga xam ne nii moo di Serigne Moutada Amar nekk ci bopp njaboot gi di nekk bis boo xam ne nii ni leen ko waxee saa su nekk eh, dañ koy def ngir dundal ak njaboot ngir dundal ak mbokk dundal islam ñu tàmbalee ko jàng alquranul karim jàng xasaayit bernde jamono ñuy wax ak yéen am na jataayu borom xam-xam yu am solo yoo xam ne nii mu ngi fi am euh, beneen euh, jataay bo nga xam ne ni itam dañ ko waajal muy cérémonie officielle bi gannaaw timis gi lay doon di dajale kilifa diine yi kilifa aada yi waaye yeneen kilifa yoo xamante ni bàyyeekoo nañ ci biir réew mi ak bitim réew waaye bàyyeekoo ci yeneen tarixa yi nga xam ne ñoo bokk lislaam ji moo xam muy biir région de Thiès wala feneen ñëw nañ teew fi Euh, jamono yi ñuy waxee ni itam am na ay euh, jataay yoo xam ne ni dañ koo euh, tënk ci xam-xam wala boroomi xam-xam di ko def te ñi ko amal di association des élèves et étudiants naaru Kajoor ñoom ñu nga féete nag ca université jamono yi ñuy wax ak ñoo koy amal gannaaw timis nak ci lañ war a amal li di cérémonie officielle bi di ndaje mi nga xam ne ni naka jekk day dajale kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñu waxtaan waxtaanee mbokk gi waaye waxtaanee bis bi waxtaanee ay naal yoo xamante ni itam naal nañ ko ci dëkk bi di boo xamante ni daal ren ni ñu leen ko waxee rek mooy juróom benn fukki yoon ñu koy amal maanaam soixantième édition di bisub sant Serigne Touba bisub jokku mbokk waaye di bis boo xamante ni euh, ñu ngi koy amale fii ci gàdd yàlla incha allah rabbi lépp fi am ñu fa yéene ko ànd ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh laka alayya shukru wa taqdis anta salaamu muminun muhayminu adu biha wa innani uhayminu anta al والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا له تكبر خالق يا بارئ يا مصور moko ko jëlilu fi ci gàddiya yobbu ko ndakaaru yobbu ko ndakaaru bo demee sikaar bu dis amna bu néebu na ci suuf bo demee ne sikaar yi dis amna na ci suuf fofu la ko ne fofu la dalaloon Cheikh Mor bi mu ba mu yag nak ba mu ba mu yag mu xey ci nuy ci ko mu xey ci nuy ci ko mu ne ko mba yaangi ngi tane mu ne ko ah mba yaangi tane mu ne ko ah man ka dag mënoon ñëwal ma ñëw rek ñu ko amal kat mbàkke da ma waxal ñëw rek mu ñëw waaye man xaw ma sax dama feebarum dit waaye man xaw ma sax nag damaa feebar wala dit ndax man bima la gisee yëgatuma li ñuy wax ndax man bima la leen gisee rek yëgatuma ci sama yaram dar luy nak waye mom xamna mom Serigne Cheikh ne waye mom Serigne Cheikh xam na ni ki dafa wara dem ki nak mom dafa wara dem mu yap ko ci ben camion ne nak mu def ko ci ben camion bobu auto yi ndaw yi yombul ne bobu nak auto yi ndaw yi bareegul amna kilifa gum ko bolel nak am na nag ne ko na nga fa toog nag. ne ko nag boo limee na nga fa toog. génnee àdduna. su génnee àdduna. bu ko kenn jullee. bu ko kenn na ko jullee na ko jullee ko jullee ba noppi. boo nañ ko denc foofu. waaye ngeen may di tuuti déglu ay kilifa kilifa dafa toog waaw. nañ ko denc foofu. nañ ko denc foofu. ndax damay bañ dëkk bi ndax damay bañ dëkk bi raaf. kon loolu. nekkoon nag Mbàkke loolu. lu rëy la. loolu dafa rëy loolu. waaye ci biir jataay boobu. nee nag ci biir jataay boobu. ñaa ngi fàttaliku ñeent fukki guddi yi jëkk yi ñu ko defal. ñoo ngi fàttaliku ñeent fukki guddi yi ñu ko jëkk defal. sëriñ Mbacke Mouhamed. Serigne Mbacke Mouhamed. la yebal si fii. ne moom la yebal si fii waaye nag ca dëj ba. waaye nag ca dëj ba. ak miraas ma. ak miraas ma. sëñ Saliou ambassadeur la fi yebal. sëñ Saliou ambassadeur la fi yebal. moom mii nag. nee nag moom mii toog di sëñ Abdou Rahmane. tànki mag ñooñu yëpp nag. tànki mag yooyu yëpp. moo koy dundal. si biir moom moo ba fii ñu toll. nee ba fii ñu toll. at mu jot. ak mu ne. mu def kook ak mu def ko xam nañ ne itam. xam nañ ne itam. amatul jot googu. billaay Mbàkke amatul yitte yi bari na. yitte yi te lu nu tuuti tuuti. te xam nañ ci dara. xam ci waaye nag. yónni si na fi daw yónnee si na fi daw yónnee si na fi daw ndaw lu mat ndaw ndaw lu mat sekk ndaw rakam ju bax rakam ju bax muy seigne Ousmane muy seigne Ousmane bakki bu koy na mu bëgg lol ci yónneen bobu ne mu bëgg ci lol ci yónneen bobu nuyit mu bëgg ci lol nuyit mu bëgg ci lol waye ren waye ren nak biñ ci waxtaan biñ ci waxtaan xam nañu tank tankam xam nañu tank tankam de xalaat na lamu defon daw xalaat ni lamu defon daw xalaat na bopam xalaat ni bopam mané ko dongay dal nee ma ni ko dong yi daal. ñoo wax ni. ñoo wax nag ni. sag wàcc. sag wàcc waaxu. sag waaxu dugg ci kër gi dugg boo ko defee rek boo rek doy na. loolu nag. nee loolu nag. dafa maa indil benn taarix. nee daf koo indil benn taarix. sunu maam ji sanc kër gii. ne sunu maam ji sanc kër gi di way juru Cheikh Mor Farima. di way juru Cheikh Mor Farima. bis bi mu jëkkee gisee ak sëñ Touba. ne bis bi mu jëkkee sëñ Touba Xaadimu Rasuul. wànnent la woon. ne wànnent la woon. sëñ bi ñaanal ko. sëñ bi ñaanal ko. ne ko mokkal nga alaaw nooru samawaat yi. ndax ni ko no no mokkal nga nooru samawaat yi. ba mu ko ca ñaanalee ba noppi. ba mu ko ca ñaanalee ba noppi. ba ci seddu guy. ba ci seddu guy. waaye dafa amub diir. waaye nag dafa amub diir. bët yi xomb cur. bët yi xomb cur. magam ne ko lii lu mu doon. magam ko waaw mu doon. mu ne ko daa sedd de. waaye métteetul de. waaye sëñ yëpp nag dong yàlla nam nag yow dong nam rek. ñu na nga ñëw rek. ñu rek nga ñëw Mbacke Mbacke. bi nga ñëwee. alhamdulilah nañ ci bu baax. bég nañ ci sa ñëw gi lool. Moustapha boo ko yabaloon mu doy sëkk. mais Moustapha mi toog rek boo ko yabaloon mu mënu ma ci. waaye nag nammeelu dong yi Mbacke Balla moom mooy ci na Mbacke gi du dong yi de. jëwe yi la mooy <laughs> ko loolu waaw waaye yéen féetal leen ak man xam naa dana métti ci yéen lool nag ndax moom jitaayam bi jitaayu Xaadimu Rasuul kon sëñ bi jitaayu Cheikh Moustapha la ñaar ñu ci biir rek ma ci muy tekk ak yéen ñoo jëm ñoo di sapeur élément sapeur pompier yi nee na mi ngi leen di dalal bu baax fii ci Gadeyelle nee na mi nga am mbégte mu rëy ci mbég ci teewaay bii ngeen fi teew jóge fa ngeen di liggéey ca nee na loolu yëg na itte bu am solo bi nga xam ni def ngeen ko ci mu ni taxawaay bi mooy taxawaay bi nga xam ni jaar nañ ci CDD bi ak ci CRD bi yëpp ca ca loolu nee na Amar Mbène mi nga xam ni mooy coordonnateur bi wax na ci lu bari ci télévision bi sëñ Xaadim mi itam nee na démb nee na jot na benn coup de fil bu jóge ci ministre de l'intérieur laaj ba xam ndax éléments muy laaj ba xam ndax éléments yi ñu soxla yëpp yemb nañu. incha mu ni ko incha allah jàpp nañ ni yëpp dana ñëw. tënkoon nañu ndax lépp nag tënkoon nañ ko ci CDD bi ak ci CRD bi. waaye nee na baaxam nag ak bokk ci bis fu bis bi ci moom. nee na moo tax ndeysaan moom monsieur le ministre muy laaj woote di laajte. waaye sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. nee na mi ngi ñaan yàlla seen taxawaay fii. nee na yàlla na nekk seen yokkute. ca yàlla sàmm leen. ba ñëw bii ngeen fi ñëw. kenn ku nekk ci yéen. ni nga ci gise sa bopp. nee na yal na nga ci gisee say yokkute nee na mu ngi leen di daral fii ci barab bi di leen wax daal ni bi ngi ànd ak yéen bis bi di ko bokk ak yéen nee na li ci des nag nee na bu demee ba ca tànt ba ca cérémonie officielle ba ñi nga xam ne ñoo amit amati comité d'organisation bi incha allah rabbi danañ ko gën a leeral ba baax a baax a baax nee na jërë ngeen jëf waaye nee na nag dalay sant ci leneen nee na sëriñ Fallou Amar sa mag ju baax ja yàlla na yàlla dooli leeram ne dama daan ñëw fii di ko fekk si ci màggal gi waaye nee na ku xool màggal gi cay waxal yàlla rek xam ni yokku na alhamdulilah. waaw nee na yokkoo woo ko da nga koo yokk nee na fekk na yow nga doon li nga doon ba noppi ne ku xam sëñ Mourtala na ma la fonke woon ba mu fi jógee itam doomam nga jàppee ko na nga jàppee woon sëñ Mourtala mu fonk la.

waye nee yok nga magal gi bu baax Amar Dikke Yalna na yag yalla mi dara tëwul nee yalla na yok so wer guddal so fan khadim bayitam itam lolou na la ko wax wa dafa bëggoon na ñew waye dafa am gant dafa ko nanga mu nuyul ma señ bi santal mako. wa xamna lu mu fi def bëggoon na def lu ko ndax sa ak mom waaw ca commune benn waaw mën na waaw nee na ay waaw nee na commune bee mu dëkk moom Xaadim Ba ay màggala nga fay xew yoo xam ne di ci yónnee kon bu yónnee see fii nee na ni nga tol ci moom a tax digganteem ak nit rek lay ca moom nee na digganteem ak nit rek lay xool. nee na moom it day wëllëreem woo xam ni. nee na moom moom bokk nañu benn néeg ñaar fukk ak juróom. ma woo gërëm ñëpp daal. kon sëñ bi nee na mi ngi lay gërëm. waaye yu fa nekk. nee dafa am yeneen màggal yu fa nekk. ay mbërtin waaw tey la tey la waaw mu bëggoon nag nga ñaanal ko mu dellu ca dem ca màggal yooyee xam naa li ma ci sama mbokk la sama xarit sama wëllëre la. waaw waaw aji mag. waaw waaye aji mag am diine a déggante bu ne ci réew mi. waaw ku mu a gisee yi. waaw loolu am na ay dara nag moom. waaw lépp. lépp bàyyi ko lépp. waaw. te loolu jàpp na ko jàpp koo xam ne moom politique boolewuñu ndax man xam na ma see dugg ci journal yooyu xam na yooyu waaye li ma ko jàpp mu fi bàyyi waaw waaw koy waaye yow loo ci waxal rek mooy samay wax yaa jàpp ci sama bopp yaa man ladayhi kasbu kulli haal assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sering bi ñu ngi di santi allah bu baax bi mu nu mayee nga dellu siwaat fii ci barab bi nga xam sa barab la ñu lool ji Serigne Mourtada Fall ni mu demee ci yow sëriñ Mourtada Diop ni mu demee ci yow ak sëriñ Cheikh Moustapha di sa taalibe sëñ Babacar Si li jiitu fi organise mbir mi nun ñi ànd gàttandu la ñëw nga toog ku ko xool xam ni barab bi mbir mi du tànd lu yàlla doxale noonu la te fokk ñu nangoo ko noonu yow nag mm, dañuy wax ne mënumaa wax ci yow waaye fu ma toll nag di wax ci yow ndax jamono ko laaj li tax jamono laaj ko mooy e, yéen ku ngeen bëggul mu dégg leen du leen dégg te ku ngeen jàppale ba mu dégg leen la mu ca am a kës néew wëratu ko jëfandikoo moom ci boppam da caa wala boole ñëpp yow nag buñ dee xool sa liggéey ku ko xool ci yii ñuy gis ci kaw muy ay bâtiment ak yu demee noonu dana tuuti lay xam ci sa liggéey waaye lim ciy xam du bari parce que sa liggéey li ci ëpp mooy tabax ay ruux defar leen sellal leen ba ñu nekk nit ñoo xam ne santaane yàlla dana yomb ci ñoom liggéey dana yomb ci ñoom jàmm yàlla dana yomb ci ñoom waaye weddi xam-xam du ca bokk liggéey boobu nag ku koy def junniy nit mën na laa romb yoo xam ne ki ngay traversé te nuyuwoo ko moo leen defar ba ñu mel noonu te yow yëgu loolu ci xew kon sa liggéey ñi ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñiy gëstu mbirum doomu aadama li taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf mu war koo def ba mat mu delluwaat ci boroom ñiy gëstu lu mel noonu ñi ci ëpp ñoom xam nañu sa liggéey waaye bu fekkee ne barab boo dëkk la rek loolu bokkul ci sa sa mbir bu fekkee ne barab boo dëkk la rek yow ñoru la bu fekkee ne oto booy war di dem ñoru la yëg naa ne li la ñor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy defar nit ba mu mel na mu war a mel bu delloo ci boroomam nekk raadiyatan mardiya te loolu li ma ci déggee sa waajur Cheikh Mouhamadul Mourtada dafa wàcc amerig ñu ne ko loo fiy wut mu ne leen amul ku ma bindal lettre recommandation ma war a ñëw fii waaye ñëw gi nag sama diine terewuma ndax yàlla moo ne dox leen ci kaw suuf si waaye su ma ñëwee fii li ma fi indi mooy fàttali leen li leen sunu borom sant ma fàttaliku ko jullit ñi ñi fi di ay taalibe ku ma fekk nga nekk ci yoon wi ma soññ la ci benn journaliste bu mel ne mbay gay sil ne ko waw serigne bi no gisse nit ku ñuul ki nga xam ne ku wex kan koy not ci rew bi ak nit ku wex ki nga xam ne mi ngi not ku ñuul ki serigne bi ne ko nit ku wex ku ñot ku ñuul ñoruma waye nit ku ñuul ku not ku weexit ñoruma man dal lima ñor nit ñepp nañu nangu ne jami suñu borom la di jamu di jaamu yàlla te bañ bokkale dara lolu moma ma yor kon sas wu mel noonu bu ko fi bàyyi koo xam ne sa liggéey ci defar doomu aadama la jëm da nga sonn ndax da nga liggéey ba sonn te ñi xamul yàlla duñ xam fu sa liggéey toll lañ cay xam du mën a bari waaye benn mag daal bañ ko laajee ne ko sa xam-xam bariwul ndax da ngaa jàngul ba mu bëggee mu xam ne bañ ko nee koo koy bañ ko laajee ne ko sa xam-xam dafa bariwul ndax jàngoo daf naa ah, bu ngeen bëggee xam jàng naa wala jànguma dem leen ngeen laaj ko sondeel yi ma doon taal ñooy lakk di ruy di sotteeku may xool li may jàng ñooñu bu ngeen leen laajoon di ngeen xam fan laa toll ci xam-xam waaye yow ku àndul ak yow biir réew mi ak biti réew mi na la wóor ne la muy xam ci yow du bare ndax yow mbooloo mi wër la ak nga nekk ak kenn nit nga yemale doo toog ak mukk nit wax ko ba wax ko loo xam ne day jàpp ne dafa bëgg ne pour nga gëm pour mu gëm la yow aw doxi nga wax boo xam ne mu set wecc wecc wecc wecc la kooy àndal ku ne rek bu ci xoolee mu xam ne mat na royukaay sëg te nag waa ji moo xam waa ji mm-hmm. waa ji moo xam waa ji waa ji nag fii ñu toll ki ñuy wax ne mooy waa ji te yàlla dogal na mooy waa ji mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha bërki démb daf ko ne naw naa la lool baat naw naa la ngir di xool li muy ëmb da nawloo nit ba noppi naw ay jëfam doo ko mën a wax ne ko naw naa la lool waaye baat boobu li muy rëy rëy rëy bi mu la ko waxee ak ni mu la gisee ak ni mu la déggee ak ni mu la xamee am na ñooñ bu leen ko waxoon danañ ci yëngal lu bari ci àdduna bi waaye man mi la xam xam naa ne la mu la la mu la jox baat boobu la mu la jox soññee la ci yow jógal nga gën a góorgóorlu bu baax noonu nga koy dégg te noonu nga koy jàppe waaye dama wax ne réew mi ku ci am quatre-vingt quelques mille taalibe yoo xam ne ñëpp ci yow la ñuy xëy ci yow lañuy gon quatre-vingt mille laa wax de déglu leen ma baax quatre-vingt mille laa leen wax. ku ko yor ci réew mi ci ay ndaw yoo xam ni dañuy xamlu te yow la ñuy déglu te nag man àllamaka xarfan waaxidan fa huwa mawlaaka benn xaraf rekk ku la ko jàngal mooy si kilifa te ñoo ñëpp yow la déggal waaye boo doon gëstu fii ci kaso bii nga dem ba yàgg nga gis kenn ñu ne ko foo nekk mu ne maa nga jóge ci daara jooju yaakaar naa ne doo ko gis leen boo gisee nit ku dox koo xam ne dafa sàggana jaamu yàlla ñu ne ko foo xëyee mu ne ci daara jooju doo ko gis de doo gis itam kenn ku fa bokk génn delluwaat toog ca fa nga war a toog ci kër ga nga bokk ñu laaj la masalatu tontu waaye loolu yépp it nag yàlla da di dimbali ba ba duñ ko yëg li ñuy yëg mooy ka xamal lool rek lañuy ñuy delluwaat ñun duñu rëy duñu goreeti duñu bëggee duñu def dara li ñuy jële ci yow daal la ñuy jël te buñ ko jëlee itam yëg naa ne ñi may jox loolu ma jële ci yow soxla nañ ko soxla nañ ko bu baax a baax a baax te léeg-léeg ñu sant ma ci te man miñ ciy sant man defuma ci dara xanaa damaa yi doonum picc yeeg ci garab gi daal rotal dara mu daanu ci suuf nga far ko lekk xëy na sa muure waaye man fa mu ko jëlee rek foofu fa la fa ko jëlee yow mi ko for ak man mi ko wuti woon ñoo ci bopp yëpp sëriñ bi daal fii duñ guddal ci yow waxna ko daw daw ak daaw jéegi yep ni sëñ beegi wax man dooma woo mukk ci rak ma wuyu le man taalibe gi rek moma ma ndax taalibe gi momay may dimbali mooy dimbali ma andal momay may dimbali moo may dimbali ñii ma andal te liñu boré bar na lool sëñ Mor Fari ba muy riñaane fii ne dafa bëgg liggéeyal sëñ Touba ñu ne Touba nga ci geejgi men mag ne ko rukk ndey ne ko njabootu cheikh al khadim yépp nga ci sëñ dam abdourahman lo bo demé lo fa liggéey ñu joxé ko ci kër ga ci la waxo dem sëñ dam ne ko loy wut mu ne ko dañ mëna a njabootub sëñ tubaa gépp a ci yow ci ñu yor ma dëgg ci ñak di la jox and ak yow ba li nga bëgg nga am lolé yag na lol kon so delu ci waté fi di serigne murtada di serigne dam ci non serigne bi dama lay wax jërëjëf dama lay wax jëf di la ñaanal yàlla nga yàgg fi te wér te xam ne lii ngay def kat man xam naa ne soo ñëwuloon du ma la wax dara xam naa ne yow boo ñëwee ñëw nga waaye sëñ bi li ma lay wax mooy taalibe yii ñoo wax ni dañ lay bëgg a gis boo bëggoon a boo bëggoon a toog it ñoom nanguwul ñoo bañ nee dañ laa bëgg di gis te buñ la gisoon bu fi yemoon sax baax buñ la gisoon bu fi yemoon sax baax ndax tëbb gi ñuy am ci yow ak li nga leen di digal di leen ko xolloo loolu lañ fiy wut te boo ñëwee ñu am ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte bu baax di sant yàlla bi mu ñu mayee ñu teewaat fi di ñaan yàlla it mu may nu defaat ko lu bare Eh, xawma bii mooy ñaateelu yoon wante xam naa ne ba ma koy def sama ñaar fukki at li ci tege bariwul ma fekk fi sëñ Mourtada mii walla nu ànd fi di ñëw ndax booba ay kilifa moo ngi fi nekk sëñ Gumba ñoom ak sëñ Fallu waaye booba bu ma fi doon ñëwit mosumaa ñëw ba fekk ko mu wan ma ne ma ñii samay mag lañu wala samay moroom lañu wala ñii dama fi toog di leen xaar mësu leen a xaar ndax nit ku am jom du def loolu du toog di xaar ñam defe na buñ demee mu toog ci seen barab nit ku gëm yàlla it du ko def loolu kon ba mu fiy ñëw di fi ñëw mën naa wax ne dama fi doon ñëw mu ak moom donte sax barabam la kon ñëw bi tey du loo xam ne sax dafa mënta ñàkk rek ndax wóorul sax bañ koo def waaye wóor na ma ne suma ko defuloo woon du ko sax jàpp du jàpp ne dafa defe day defe na sax lu yokk lay doon waaye xalaat ne mukk lu wàññi la loolu yéen ñun ñu di ci sant yàlla bu baax ndax la taxoon ñu di ko defet ba léegi si loola dafa yokk waaye dara wàññiwu ci te am na jamono boo xam ne du moom moo doon sàmm loolu foogul woon ne dana ko mën a sàmm kon ki ko ko sàmmloo rek moo ko def loolu moom itam ni ko mbay Guèye ñoom waxe muy koo xam ne xëy na li mu wax la mbirum sëñ tubaa kenn du ca jàpp bokk kenn du ci jàpp rak ak mag ku ko xam lu la ci féete ca kanam rekk walla loo jàpp ne moo la ca moo la ci féete kanam rekk da ngay jël teg ko ci sa kanam loolu wax naa ba tàyyi ne ku xool histoire sëñ tubaa ak i bokkam dama ko daan lim di ko tudd ba fii ma jaar léegi si muy Daaru Muxti di barabu maam na Birahim ku xam ne kon la nga xam ne mooy boole sëñ Touba ak nit maa ngi koy wax sëñ Mountakha barki demb ne ko aw may taalibe bokki taalibe laa am loolu li ma bëgg a wax rek mooy sëñ tubaa ku ko xam xam ñamu bokkal ak nam ko def nga xam ne lañ jàpp ci moom kon la ko la la ko lal mooy yàlla rek loolu tamit mooy li nga xam ne moo moo fi nekk ba léegi kon sëñ Mourtada tamit loo rek la euh, lii ma gisit ah, di wax dara foogoon naa ko kooku du wax bu wax bu yàqu la ndax nit xay bu moom yàlla rek moo ko xam xamalu ko ñu bare ñam ko xamalit du ñoom ñoo koy wax ndax secret la waaye sañ nga nag euh, tàndale tàndale nag bu demee ba jàpp léeg nit ki bu xamut mën naa defe ne sax booba dafa xam lu ñëwagul fekk yàlla dogale noona rek mu war ko caa sant loola ca lam doge ak lam xalaatoon wala lam defoon su ca dugalee yëfi boppam nag wane ne lu mu xamoon la bu boobaa mën na koo yàqal lu bare ndax yàlla rek a xam loolu wante jàppoon nañ ne bu fi kilifaam yooyee nekkul te ñëw nañ fi ay yoon wax loo xam ne sax léeg mu xaw noo rëcc wante loolu tamit nit du ko lijjanti am na loo xam ne bu fekkonte ne ay pexe rek la kon dana bare lool ñu fexe fexe bu rëy damay wax ne sëñ tubaab mii lu muy am li ko yàlla di may lépp mu liggéeyal ko ba am ca lam ca amit bu fekkoonte ne ay lijjant rek ay tax a doon ko kon dana fi bari lool kon mbirum yàlla ak mbirum nit ki yàlla teg ko barab boo xam ne fees na ko du lu nit di lijjantil boppam waaye day fekk nag mu laytaayal ko bu noppi laytaayam jooju nag waajuram am ci sëñ Tuubaa loo xam ne moo ko lijjanti moo ko liggéey def ko jox ko yi tamit teg ko ci loxo koo xam ne tamit sëñ Tuubaa bàyyi woon na ko xel Euh, ndax da cee am loo xam ne sëñ lu Mbacké ku baax la ku baax la baaxul sëñ Fallou moom du lu ñuy wax. Mhm. dafa nekk loo xam ne sax nit ñi dañuy xewal ba xewal loo xam sax xamuñu la ca biir. waaye xolam bu rafet ak laabiram ak ñàkk kañaanam ak ñàkk ak xam sëñ Touba ak xam lam yor daana wax ci sëñ Mourtala lu bare. kon waajuram mii nga xam ne moo ko moo ko moo ko jëloon muy ndaw te yaakaar naa ne tamit fii. ay magam ak kilifaam yëpp dafa toppoon ci ñoom ku ne xam ne li fi nekkoon dañ ko doon tey dëgëral ko ñoo ko tollu fii waaye tamit am na noo xam ne bu ne doxe woon bu tolloo fii dana am bu baax lu feeñ kon nekkul woon nekkoon nag ku tuuti at ci ñoom waaye nekkul tam woon tamit gone ndax waajuramun moo ko samp loolu nag moo tax ñun tam suñ fi dee ñëw di fi barkeelu si dama ko wax ne su ma ñëwatee li mu ko waxee léegi la mënuma fi bu soobee yàlla feeg maa ngi dund incha allah dama koy def ndax la tax ma di ko def man xam naa ko bu baax wante su fekkente ne ñëw naa fi taxaw rek bu ma yeewee tamit ak ma toog fi ba suba ak ma toog fi ba ay fan ñooyam ci moom amul dara loo xam ne dana xam dana teewul mu xam ne la ma fi indi moom xam na ko bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ay taalibeem yéen taalibeem di ay bokkam ngeen xam ne yéen la ñuy sàmmloo njabootu ak sëñ moom ngir ànd ak moom xeebu leen ko ci def te am na lépp fi la lu bari fi la ma fekk mm-hmm. te saa bu ma fi ñëwee mag ña laa fay fekk ak ñi nga xam ne ndaw yoo xam ne kenn ku ci nekk xam naa ne sa waajur dafee nekkoon ba jeex fi yow nga ñëw ànd ak moom te la ma gisoon nga la ma fi daan fekk ay mag di ko warmaale ba léegi see su ma ñëwee damay fekk lu ko ëpp kon nag loolu nu ngeen xam ne na ngeen ko gën a téye bu baax te xam ne yëf yi du ay caaxaan ku yàlla jox dara teg ko ci loxoom nga téye ko te te fam ndab yit nag yàlla ci boppam it alam huwa alamu haythu yaj'alu risalata loolu la daan wax loolu la wax ci alxuraan maanaam ay mbiram du ko sànni du jël am ndab lu foq wala ndab lu tilim wala ndab loo xam ne boo ko buy tax boo cee def dara muy muy muy daanoo di tasaaroo du ko jël mukk di ci def mbiram kon nag loolu ma seedee leen ne loolu ci boppam moo tax ñu di fi ñëw ngeen téye ko bu baax téye gi xëy na am na waaye ñun itam sunu wax gi da ci am am na ci mën na cee baax na ci ndax yéen a ko téyel seen bopp seen njariñ la waaye nu xamit ne fa ngeen téye du rëcc fuqul bënnul tilimul loolu tamit mën nañ ci seede loolu tamit am nañ ci mën nañ ko wax te lu ñuy wax lu nekk du buur lu neex ndax tamit weesu nañ ko sunu sunu sunuy sunuy at weesu na foofu bur woon sunuy at itam sunu jom wala sunu kanuy topp muy sëñ Tuubaa mayunu nuy wax loo xam ne dañ cee jublu dara lu dul lu baax ak yàlla rek kon nag loolu rek moo taxoon ñu di fi ñëw di ko ñaanal di leen ñaanal yéen taalibe yi di leen ñaanal yéen ñi bokk ci njaboot gi kenn ku ci nekk yàlla na yàlla faj sa aajo bés bii tamit lépp lu fi waay wut ci lu baax yàlla na ci yàlla defal lu ful la nga xam ne moom nga ci yaakaar ñoo xam ne daal sunu ñëw fii nekkul loo xam ne rek lu war a yéeme la mm-hmm. ndax du léegi te lañ fi doon fekk ba tey dafa yokk waaye dara wàññewu ko ci kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñi fi nekk ñëpp di leen sant di ñaanal yàlla faj sa aju yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu